te waxal noonu la da ngay fay micro bi téye ko noonu asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina ginnaaw bi leen nuyoo daal di leen ziara daal di dindi ci sallallahu alayhi wa sallam daal di sant suñu ñaari waajur waaye def ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Khadim Rassoul mu daal di fi yàgg loo sowé gis ngeen ne nag Bambey TV daal di ñëw ñu leen amal li nga xamante ne nii mooy teewaayam ci journée xasida di nga xam ne daal dinañ koy amal fii ci Touba gis ngeen ne ñu ngi fii ci Touba macha allah di ko di ko def comme ni ko sëñ bi digle woon ngeen dina nit ñi daal dinañ ci wuyu si Bambey TV nag di ñëw benn yoon ginnaaw ba nga xamante ne depuis ce matin ñu ngi woon kër ki nga xamante ne nii mooy sëñ Abdou mooy Serigne Abdou Samad Mbacke mu Serigne son yi bu ñu daal di fay yendu ak moom daal di fay amal journée xasida yi waaye nag bu ñu paree dañuy daal di dem jumaa ji daal di gis jumaa ji ñoom tamit góor yàlla yi nekk foofu di turis xasida yi nan lañ koy turisee li nga xamante ne mooy mbooloo mi nga xamante daal di nañ ñëw ci journée xasida bi gis ngeen ko ñu ngi ci tali bi nga xamante ne nii moo daal di jugee fi nga xamante ne nii mooy tali Daaru Musti bi bi nekk Madiyaana 6 daal di jëm directement ci jumaa ji noonu la ñuy àndee rek ak ah daal di laaj nit ñi nan lañ dundee rek xasta bi minyak wax ya ñun daal ñëpp ñëpp nga ci ñu kontaan ñu ñu kontaan baax gërëm ñu kontaan jaajëfal nañ ko gis ngeen ba tey dañuy continuer Mana mana mana mana mana jadi فرق بين مقدمة ومطولة ما شاء الله malam di woowaat ndaw daara ndaw sëriñ Saare bi nga xam ne noonu la ñu àndal liggéey bi di dellu di delluwaat lépp sëriñ Saare di ci ಗಿಲ್ವಾ ಜೀವಿತ ಯುವ Mangga ke kamu ni. Ni. Ben tadi dok dem lagi baju lagi jelek ca kaw dëkkum sëñ Bamba la barki Yàlla ji fallu te boo xoolee li mbir mi Macky Sall tegu ca loxo waaye sëñ Bamba teg na ca loxo sëñ Bamba moom dëkk bi waaye nag sëñ Mountakha defar dëkk bi barki Yàlla ji fallu te ku jaaxle rek sëñ fallu rek ngay woo ca kaw ca kanam dëkk bi sëñ Bamba ko moom waaw ñun la koy delloo waxtaan Bambey TV di leen jox wàccuwaay yëpp di leen di leen ñaanal jàmm sax dàkk bark sëñ Tuuba waaw xam nga ni sëriñ pas-pas ci liggéey sëriñ bi rek ñu ne moom lañ amee yëg yëg liggéeyal ko ndax gars yi organisé nañ boole nañ seen doole boole seen i dërëm boole seen i lépp démb ba léegi ña ngi ndax def nañ lépp lu ñu am ngir maanaam ndukkeele Serigne Touba te di ko ñaanal si Mountakha moom mu yàgg loolu te ànd gërëm nañu jëwriñ yëpp di gërëm Serigne Youssou di gërëm Serigne Amsa Diallibat mu rafet taxawaay bi rafet na trop maanaam lépp Serigne bi daal moom gën naa feeñ ñi ñaanal sëñ Moussa daal mu yàgg ci ayah, murder and karena takut sama machine Thank you. daal di am accès ci jumaa ji sax xam naa lu jafe lay doon parce que actuellement ñu gis ngeen ne mbedd bi jógee fi nga xamante ne nii mooy tali Madiyana Cissé jëm ba jumaa ji dafa daal di fees dell ah si da nga naan sax yaa ngi ci màggal macha allah. dëgg la waaw ah, ziar nañ leen. waaw waaw day doon a baax. ko def ñun ñëpp ci daal rek. Euh, balaa dara xew dañu ñaanal si mun taxaa mu yàgg si ndax mu yàgg rek mooy suñu mbég waaw dañ ko ñaanal mu yàgg si loolu dëgg ñoo kontaan rek war na Sëriñ Tuubaa dañoo kontaan nit daal war naa la kaay daa jël fii kontaanoon trop kontaan rek jërëjëf

Yalla ñu yàq

Wah, ya le. Ella para Halo. Ya tenan kan ini barkalla masyaallah te fi tamit dëkku murid la waaw julit la nah. iya, iya. dëgg kase la kase kase di seen taxa mu fi tëj lool da kay waaw amin amin Eh, eh. Wah, Eh, Eh, jalan weh, nga xam ne ay turu yàlla lañ koy yëkkati muy baatu laa ilaha illallah bàyyi naa la rek nga dem ndax buur yàlla yi fi mu ne nii seen yaram tàng na sama caméraman aatu moom mooy dem ba Thank you. तो तुझे ग्रोडे वाटर ले लिया ना Thank you. Не leen wax rek ne moom internet bi mu ngi buntu ko ak jumaa ji ñu nekk nii ngeen gis ne eh, Ibu

وعلى لا اله الا الله لا اله الا الله 嗯。 ñoo ngi gis ni ci ni sëñ moom sëñ Souhaïbou bi daal daal di jàngat benn waaye jaarale ko ci seen amal nañ ko ñu ci jàpp xasida yi nga xam ne moom la bind bàyyi waaye bàyyi ko mbokk taalibe yi nga xamante ne ñëpp ku ci nekk yaa ngi ciy bay sa ñaanal sëriñ Mountakha Serigne a Khadimu Rasuul yàlla ko koo tëwal barke lu mu dund rek ñu ngi koy ñaanal yàlla dund waaye gën ko may ñu waaye bàyyi ko ci kanam di leen wax ne gis ngeen ko Bamba TV daal dina àndoon nii moo xew tey fii ci Touba muy journée bi nga xamante ne ñu ci daal di amal xasida yi ñu koy dafa daal di fees del kenn xaju kenn du am accès ci biir après fii la ñu yemee vidéo bi gis ngeen ne ñu ngi mel ni ñoo ngi mel ni ñu nekk ci màggalu Touba. waaw lépp ku bëri nekk rek daal di nga ñëw teewe bés bi daal di jàngandoo jiw bi waaye daal di koy ñëw ci yëpp boobu la ñuy jaaree nag naan leen dañ naan leen jërëjëf bés bu Touba. yéen ngeen lay sama xarit. ñaanal ñoom ñu ngi ci ñaan yàlla bu demee nii daal di koy ko ci jàmm ah di eh, wax na ne ñu ngi jëm ci màggalu Touba.

ಕಮಲ